ku nekk boobu bu nekk cinquante mille cinquante boobu dama koo leen de suba la mooy élection tey su guddi ngeen di ñëw si guddi gi day ñëw ay deux heures de matin nuyu si leen jox leen ku nekk cinquante mille cinquante mille cinquante mille les représentants du bureau après la leen di jël ñoom ñëpp woo leen ku nekk mu wéeb la cent mille cent mille cent mille deux cent mille deux cent waral liggéey bi muy xaw a difficile bu baax a baax a baax a baax a baax fii nii waaye du foofu rek commune de Agnam loolu moo fa nekk commune na commune si Badji Civol looloo fa xaw a nekk c'est parce que commune na Badji mooy commune wax naa la ko mooy commune bu gën taxaw ci commune Fouta yépp commune la boo xamante ne am na ay villages yoo xamante ne président Ousmane Sonko dafay gañe comme commune boobu noonu xaw na tane waaye commune Dóobu Soogi aussi commune la bu doy waar mooy commune Moussa Bocara Thiam comme que tey damaa xam ne si Agnam nga gën a focus nañu gën a naa la gën a wax ci Agnam. tey Agnam la. Farba Ngom Agnam. dama bëgg ngeen xam ne tey ci añam laa nekk. waaye Fuuta gi yépp dinaa def tour bi incha allahu rabbi dëkk bu nekk ci Fuuta commune bu nekk ci Fuuta département bu nekk ci Fuuta incha allahu rabbi dinaa ñëw ma waxtaan ci ak yéen. te aussi sénégalais yi ñu préparé wu ñu jël suñu ay responsabilité ndax Farba moom li mu sàcc ci ay milliards moo ko jaaxal te ma jaaraale vraiment ne père Mansour Mbaye patrimoine sénégalais nekk nga gàcce ci Sénégal ndax sa doom mooy sëyeeg Farba Ngom bandi bi te yow de vraiment sagal nga géwél yi ci Sénégal waaye Farba lépp loo liggéeyoon yàgg sa xeet Mansour Farba nga koy yàq Farba tey nee nañu jënd na band yi nekk fuuta yépp waaye dinaa leen ko dégluloo ndax ñu bari xamuñu ndeysaan añam waaye añam du benn añam moo am ci fuuta añami yi juróom-ñaari añam la defe naa comme ni ngeen ko déggee léegi suñu frère bi expliqué expliqué leen ko añam góoli ah añam li liddube ak anam coode ak eh, añam yu war a sire ak añam si woon ak añam goodo ak anam euh, cel celle voilà donc farba moom bandi bi mi ngi bokk ci añam wër sire voilà donc nañu dem ñu continuer déglu suñu frère bi vraiment ci faram-pàcc bi nga xam ne moom la ñuy faram-pàcc li nga xam ne moom moo xew Fouta du benn nit rek j'ai parlé avec beaucoup de Foutanké j'ai beaucoup d'audio beaucoup de vidéos on a nos hommes sur le terrain on a fait l'investigation Farba dem na enregistré na ay nitu Mauritanie waaye du Mauritanie rek de Saalum non euh, Saalum aussi jëlee na fa ay nit donc yooyu yëpp di ngeen ko euh, bawol bawol jéggal leen ma donc lu bari di ngeen ko dégg fii tey te di ngeen ko xàmmee te di ngeen ko ràññee incha allahu rabbi ndax ñu préparer leen duma à la première heure en 2024 incha allah ñu continuer bismillah boogu noonu ma lay wax wax naa la ko plus de ñett kër Farba Ngom lépp dafa am ay château forage defoon naa ci live man ma filmer château forage yi yëpp jaar euh, set añam a ngi noonu añam gol yi añam lii dubee añam code yi añam wuru kat mooy añam wuru foofu la Farba Ngom dëkk añam wuru siree boobu noonu Farba dëkk nag amul électorat bu baax añam siwol foofu mooy ville communale bi mooy cinq waaye añam code bi nekk troisième place moom mooy dëkk bi ko xaw a të parce que foofu y a des frères patriotes yi fa nekk comme Mathiar Sarr ak yeneen i frères euh, ba naka lay def ba maîtriser bureau de vote yi nii yëpp codey moo ko ci xaw a të mooy que ne Farba jëndul les représentants de bureau yi kese par exemple jëndul ñiy représenté les mandateurs de opposition wala ñiy siège foofu noonu nekkul ñooñu kese la jënd waaye képp kuy ku am responsabilité ci bureau de vote da lay jënd ñi fay ñi fay représenté DAF ñi fay ñi fay représenté euh, Sénat ñoom ñëpp lay jënd ñëpp laa la wax lay jënd les journalistes bu ñëwee këram lañuy dal ñoom ñëpp bu ñu ñëwee da leen di dugal ci appartement kër la leen di dugal billahi wallahi wa tallahi tuumalu ma ko barke Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass bi ma yaakaar bu ñëwee da leen di dugal ci kër appartement moom moo leen di wàccee mooy ñoom représentant daaf yi ak sena yi moo leen fay dugal jox leen xaalis ku nekk boobu bu nekk cinquante mille cinquante boobu demagoo leen de suba mooy élection tey guddi ngeen ñëw guddi gi day ñëw ay de matin nuyu si leen jox ku nekk cinquante mille cinquante mille cinquante mille les représentants du bureau après la leen di jël ñoom ñëpp woo leen ku nekk mu wéev la cent mille cent mille cent mille deux cent mooy waral liggéey bi muy xaw a difficile bu baax a baax a baax a baax a baax fii nii waaye du foofu rek commune de Agnam loolu moo fa nekk commune na commune si Civol looloo fa xaw a nekk c'est parce que commune Nabadji mooy commune wax naa la ko mooy commune bu giina taxaw ci commune Fouta yëpp commune la boo xamante ne am na ay village yoo xamante ne président Ousmane Sonko dafay gañe comme commune boobu noonu xaw na tane waaye commune de Ourossogui aussi commune la bu doy waar mooy commune Moussa Bokar Thiam comme que tey damaa xam ne si Agnam nga gën a focus. nañu gën a naa la gën a wax ci Agnam. far Ngom Agnam googu noonu ma lay wax wax naa la ko plus de ñett kër Farba Ngom lépp dafa am ay château forage defoon naa ci live man ma filmé château forage yi ba pare mu jël courant direct wax naa la ci audio bu njëkk bi mu yóbbu ko ba ci biir këram du fay courant te kër yëpp da am dafa am ay piscine am ay sato forage mooy que waa Fuuta lu ëpp ci lu ñuy fay ci facture ndox wala ci facture non ci facture courant nañu xam ne Farba Ngom la ñuy fayal këram période bi ma lay wax ak bi may wax ak yow nii muy jël ay oto yu bari di ko may ay nitam pour ñu defal kooku campagne ba pare gis nga parrainage bii nii ñuy wax ay trois millions am nañ plus de cent mille cent mille fii ci Fuuta dañuy fen du dégg ma wax la ci benn affaire nga xam ko waa service Sénégal waa service senegal nga xamante ni dañoo liggéeyandoo ak DER foofu la ñu jaar pour am parrainage audio bi dama bëgg nga ko bu baax waa service Sénégal ñooñu la ñu jaar ñi nga xamante ne liggéeyandoo ak waa xamante ni nee nañ dañuy financer côté euh, boo amee projet ñu financer la ñooñu dañoo jékki-jékki annoncé comme ku bëgg ñu lebal la xaalis ñëwal nga fekk ñu suñu service Sénégal ñooñu ñoo récupéré pièce su maire yi ak paa yi billahi tunkara wallahi wa tallahi ren fuutank yi dañoo neewoon dañu pare na Macky Sall parce que Maulana Cheikh Ibrahim foofu la ñu naxee maire yi ñu ne leen kaay leen ñu lebal leen yéen ñiy liggéey ci marché yi borom bitig yi kaay leen ku bëgg xaalis ñu ñëw lebal ñu dem service Sénégal gars yi récupérer seen pièces yi. beneen bi mooy que ne ñuy gérer domanial ci mairie yi ñoo jékki-jékki naan dañuy defaraat suuf si dañuy defaraat euh, kër yi ku nekk ku am kër na ñëw nga binduwaat nga indaal sa pièce d'identité ak boroom tool yi ñun nag wax nañ ci ba sonn mais xam nga magum villageois. dafa xaw a dëggal bopp surtout nag bu nekkee magum pël surtout bu nekkee magum pël waaye parrainage yu ñuy wax yëpp ay fen la ci aañam yi ma lay wax benn aañam lay mooy am ndox mu tane muy aañam wuru sirée mu far bi dëkk yeneen aañam yépp journée bi vingt quatre heures bi ay trois heures de temps la ñu am ndox quatre heures de temps la ñu am ndox aañam codey man connaissance de cause laa lay wax aañam codey bu ñu amee ndox huit heures neuf heures dix heures dinañ toog ba une heure du ñu am ndox château bi ñu du am ndox bu ñu amee ndox quatorze heures quinze heures seize heures ba dix sept heures dix sept heures une heures du ñu am ndox te pourtant Farba mu ngi jël ay ay këram dafa euh, mu ngi jël ay këram def ay château forage kër gu nekk mu def fa château forage. Euh, Tunkara Farba terrorisé na Matam. far ba terrorisé na Sénégal te amul ku ko ko may nag lu dul Macky saay saay sal mii ñu nekkal makki mi nga xamante ne bandi la c'est un saay saay bi nga xamante ne moom lañ fi nekkal c'est parce que Farba dafa am fu mu ko xoj bu lay yaakaar nag far Farba day xool li neex Macky Sall Macky Sall mooy xool li neex Farba Ngom billaahi wallaahi wa taalaahi yéen a ngi fàttaliku bi ñu sàccee euh, kiiwu parrainage kiiwu liste Agnam yi li ci département de Matam yi bul fàtte loolu Tunkar Jibril moom bi ko Farba Ngom ñëwee di ko imposer pour mu recevoir ko Macky dafa bañoon dafa ne wóorul kii dafa sàcc loolu dañuy indi mu ne ko xee par force da koy recevoir kii liggéey bi ma liggéeyal par force da koy recevoir makki si boppam moo ñemewul far Ngom lu jafe dëgg la nag lu nakkara dëgg dëgg la mais barke Mawlana Cheikh Ibrahim Farba Ngom Macky Sall ko Farba Ngom Macky Sall ñemewu ko mooy waral yaa beaucoup de hommes d'affaires ay ñoom xaaru na Dia déggatoo leen fenn yaa des milliardaires sant buso bëgguma tudd fii seen dutu ñoom Mansour Bousso ak ñeneen ñoo xamante ne xam naa leen seen chantier yëpp wala seen projet yu bëri Farba moo ci toog c'est parce que dafa bëgg ñooñu jël buum takk si baatu ñooñu muy leen di diri ñooñu di yëkkati ay milliards di ko jox ñooñu ne ko déet ñooñu ay hommes d'affaires lañ dañuy liggéey muy koj ñooñu si ay marché yi ñu doon am pour ngeen xam Farba Ngom rek Farba Ngom nit ku yées la keroog euh, sama yoon nekkul ci loolu waaye maître Malick Sall dafay ñëw di dajale ay nitam ñoom ñëpp benn lañ ñoom ñëpp kenn baaxul si ñoom mais comme que ndaje boobu noonu neexul Farba Ngom Farba Ngom dafa yónni foofu ay nit ñu jël pompe à gage seen kanam liggéey lu ñu citoyen Fuutanke yi fi nekk Farba Ngom la ñuy liggéeyal ci année bi ñun man GPS Pastef département bu maatam déposé nañ plus de vingtaine vingtaine laa la wax vingtaine plus de vingtaine lettre d'information amul benn buñ si autorisé bu lettre d'information ñëwee préfet bi day woo Farba ne sa boo yi de ñëw nañ fi pour naan dañu manifester mu ne manifestation bi ci lan la mun leen ci lii wala ci lii ci lii Farba moom ne bu ko autorisé du ko autorisé mu woo commando commandant yi mu ne dem leen booy bu kenn bougé commandant yi fi nekk yëpp ay commandant corrompu lañ waaye yemuñu fa parfait yi fi nekk yëpp ay parfait corrompu man maa ko wax te yàgg naa ko wax samay émission Farba Ngom doom fii la ñëw billaay wallaay wa di xeex doomi aañam siwol génne goom mujjewul fenn indi ay nervi nervi yi di dóor boo yi ci kanamu gendarmerie yi taxaw di xool ay nervi di dóor doomi aañam parce que dañoo xeex ak doomu Farba gendarme di taxaw di xool ay nervi di dóor doomi aañam noonu la woon wursoo gi ay nervi di ñu dóor di xeex ak ñun gendarme di taxaw di xool waa bip taxaw di ñu xool bi bi fa Macky Sall ñëwee le reste nag li may wax assuré nit ñi loolu dama la koy yónnee nga wax ko gars yi li ñu doon wax far ba à dire que Fouta est-ce que dinañ amati ci ñoom confiance y a des hommes confiance yi fi nekk am na homme de confiance yi fi nekk ñu ngi liggéey bi Jibril Ngom waree ba léegi Pastef mënoon na fa jaar tas ci biir Fuuta mais ba léegi ñu ngi continuer di dérouler liggéey bi ni mu waree ba tey jii te incha allahu rabbi liggéey bi day continuer journée bi nag bugg naa nga wool ma ci mbokk yëpp bépp patriote